asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère de la santé de l'action sociale tey bésu gaaw ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars mi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajal ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar test yi ñu def téeméer ak ñaar ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñaar. cas contact mooy ñu jot eh, mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn kaa bu joge bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci juróom fukk ak juróom yi tuddee cas communautaire ñi nga xam ne ñoo jot ci mbas mi fekk xamuñ fuñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñu seen lim nii la tëddee ci gox yi ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fanweer ak benn ci mu ñett ci Mariste Ouest Foire ak Plateau ñaar ci Fann Résidence Nord Foire Parcelles Assainies Sacré-Cœur 3 ak Yoff benn ci cité Aliou Sow Dieuppeul Fass Mbao Kër Massar Liberté 6 Malika Médina Ñaari Tali Thiaroye sur Mer Yarax ak Zac Mbao ci région yi am nañ ci ñaar fukk ak ñeent yu tëddee ni juróom ci Tiwaawoon ñeent ci Kolda ñaar ci Bunkiling ak Touba benn ci Daaru Musti Diofior Fatick kaw Kaolack Kédougou Maka Koulibantang Matam ñooro Mboro ak Vélingara ak Sareya ñett téeméer ak fukk ak juróom si malade yi ñu entré woon hôpital ak ñu doon topp ci kër yi wéeru nañu bés ni ki tey dinañ génn bu ci yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo nekk réanimation ñett malade ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb ak juma ñaari fukki fan ak juróom benn ci weeru mars mi nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi ñu topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñett ak ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-benn ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñaar wér nañ ci junni ak fanweer ak ñeent ñoo ñàkk seen bakkan mu des juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent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 ci Sénégal yépp ministère la santé de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yu muy joxe bés bu nekk di leen xamal di leen fàttali tamit ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan bi di bàyyi xel ci mbir mi di sol seeni masque ni mu ware masque dafa war a muur gémmiñ ak ba ak bakkan di raxas seeni loxo saa su nekk ndox ak saabu walla di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité mooy mbas mi ñoom tamit nañu fexe ba dem ci bërëbu ñàkkukaay yi bu ñàkkoo ba pare nañu denc seen carte bañ a fàtte seeni i te di wey di jëfe digle yu ñu joxe bés bu nekk ministère la santé et de l'action sociale muy leen di sant di leen gërëm wasalaam